dañoo gis ne euh, damay dem ba ne ñun est-ce que ñun sa askan wi lañ bokk wala bokkuñ ci askan bi ñun Sénégal lañ bokk wala bokkuñ Sénégal toujours dañ koy waxaat BRT bii nii ab sabte nañ ko bëgg nañ ko dañ koy wax di ko waxaat mais dañ woon fépp fu muy jaar dañ waxtaan dañ fa war a jaar ñu dee demancé leen te bañ commencé ba léegi loolu moo am lu ñu gën a métti nag barki dem dañoo gis préfet bu Dakar def benn vidéo jaaral la ko TFM euh, di wane ne waa Petersen jox nañ leen xaalis jox nañ leen ay cantine yéen waa Patasène yéen laaj laaj ndax jox nañ leen xaalis. ndax jox nañ leen ay cantine. waaw léegi askan wi naka lañ leen di def man nag man man nag damaa bëgg comprendre as kilifa yi nga xam ne ñooñu jiite suñ demee bay suy ay sëy yoo xam ne pour nax askan wi la. léegi ñun naka lañuy def ñun. deglo len waay may la tuuti deglo len deglo len kilifa yi nga xamne ne ñoo ñu jiite nga xamne ne suñ jaaxlee ci ñom lañ wara dem ñom buñ démé ba diñu tok ñun fan lañ jëm ñun suñu njabo ñun seen njabo lañ suñ jaxlé ñoo ñu war defal mais ku lu war defal bu lu tëkkoo yo fo jëmati askan bi ni naka lañ leen def. askan bii damay laaj Sénégal lu ñu leen di def ñun lu ñu laaj bëriwul ñun laajuñ financement laajuñ dara nañu dimbale ñu am site askan bu liggéey ñu nekk si jàmm ñii. président waxal ak ñun. barki dem président waxtaan naa ak moom jokkoo suñu Macky ak jokkoo ak Macky moom ji boppam moo ma xamal ne BRT fépp mu war a jaar même bu doon état sax mi tudd foncé danañ ko dindi mais dañ la jox lu li nga am te fépp mu war a jaar même ak lu ku mën a doon. danañ waxtaan ak moom dès demain la jox la nga dem mais mënut a comprendre ñu yëkkati ni te amuñ fenn fu ñu leen teg. ñun dañoo yëkkati teguñ ñu fenn maanaam lu ñu def mooy rey nit ki te fekk deewul loolu la ñuy def ñun dañoo rendi ba pare te fekk deewuñ nit ki nag mënoo koo rendi ba pare na du yokk ñun danañ yokk danañ wax wóoy danañ wax wóoy yaay yooyu. xam nga lu ñu am ñun pour sénégalais yi xam ko dimanche le 26 dimanche le 26 bii passé. lañ ma o oo suba teel na ma pat na ma patal bépp contre ba fa nekkoon Senelec ñëw ne buddi ko ma damaa jóg sa sama yére sangoo ma sax ba ma ñëwee ma oo préfet moom ci boppam préfet bu Dakar moom ci boppam ma oo ko téléphone. ma ne ko ñun dañoo ñu ne dañoo gis dañoo ñëw buddi bépp courant bi fi nekkoon te depuis boobu ba léegi kenn waxut ak ñun dara te xam nañu BTP fii la war a jaar ñu xanaa ñun dañ cee nu ñu yéen bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan te suba sa mi lundi la 27. ñu dem fa depuis 4 ba 6 heures waxtaan mais amuñ benn solution lam ñoo bañ fay jiw ko en tant que préfet dañu ñu bi ngeen demee waxal xale yi ñu jël seen bagage te ba ñu ñëw fekk na ñëpp wàcc man ñoo ne gars dem leen fii ak suba kenn dañ xam solution waxtaan minu jugu di lañ ma woo téléphone na préfet mu ngi fii ak gars di daaj ji bagage yi ci la ñu waxtaan te gars yi a sa bagage jël ko lii lañ ci am kenn kenn interpellé wuñ ñu kenn yëgaluñ kenn waxuñ ñu dara benn dërëm patar seen amul ko fi joxuñ leen dara borom magasin yi nag dimanche nañ leen biir garage bi nii ngay gis dédommagé nañ leen. est-ce que nekkul préfet ñu génn wax. déedéet préfet xam li may wax ni préfet am na ci lu ko leer moom ndax moom toog naa ak madame Kébé wax leen ko nak ñun waa Petersen concernant yi kenn waxut ak ñun kenn di mënut a def ak ñun dara mënuloo beneen kàlla dañ ci waxtaan. barki démb dañoo seetaan ci télé bi gis préfet bu Dakar taxaw ànd ak Babacar Gueye daal ni fay nañ leen kon nag jox na leen ay cantine loolu la ñuy démentir parce que mbooloo mu toll nii. ak nit ñu toll nii at weeru koor bii rek ay jullit dara ñu fen su fekkonte ni fay nañ ñu dinañ am ngoru jóge fii xam nga lii ku ko xool xam ni du dëgg te du yoon te préfet bu dakaar moom laay tudd moom moo woo Dame Badiane sama kanam ne ko daam mu ne ko naa mu ne ko calmer sa boy yi dégg naa ñu ngi yënga-yëngal foofu ñu waxtaan daam ne ko préfet mu ne ko naa mu ne ko waxoon naa la Pétersen yëkkati ko yomb na mais réussir ko moo jafe kon préfet bu demee utaat beneen nit wane ni kooku mooy délégué marchand ambulant préfet ñun dañuy titti loolu. ñun dañuy titti loolu ndax préfet moo woo Dame Badiane te xam na ni Dame Badiane mii mooy préfet bi moom mooy moom mooy délégué bi. li tax mu xam ga ba pare di dem utiwaat keneen koo xam ne nekkul ci biir marché bi naan kii nii moom mooy représentant maître Petersen loolu la ñuy démentir tey du dëgg du yoon.